asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu parce que seen mbokk la Sada Diop moo leen di nuyu di leen ziar di ñaan sama ojo fekk leen ci jàmm di leen ñaanal jàmm di sàkku ci yéen ngeen ñaanal ñu jàmm di leen xamal nag ni leen gaal googu départ woon Sénégal te ni dafa teer ci Cap Vert ci suba ay vers 9 laa ko dégg ma jël tax ci fii ma nekk ci Santa Maria dem Espargos fam teere joon bi ma demee ñu ni ma nekkut sa Espargos Palmera la nekk ma jëlaat oto dem Palmera bi ma egsee dem naa ba gis gaal gi ca poor ba ñu ni ma ñi ci nekkoon di dund ak ñu faatu yóbbuwaat na leen hôpitalu Espargos ma jëlaat taxi dem hôpitalu Espargos tey day 15 août di fête hôpital bi presque liggéeyuñ bañ ñëwee ñi nga xam ne ñoo ci faatu def nañ leen ci morgue yi dem naa ba tiim leen plus de 30 nangam personnes teg naa leen sama bët bii ñi nga xam ni faatuwuñ ci ñu jëlaat leen jël leen yóbbu leen école yi nekk Palmera ma jëlaat taxi dem ba Palmera dem naa ba àgg ci ñoom ñi nga xam ne ñoo ciy dund ña fa des ci dafa dund vingt deux personnes lañ ba ñu naareen am na benn booy bu ci nekk bu naan nguura jox na ma numéro téléphone magam moor booy ca Fass booy ma arrêté ko whatsapp woo ko jot ko ni ko sa rakk mi ngi nii gaal gi la dix bu le passé la départoon ba tey jii lay doog di fii am na un mois cinq jours ci tey doog di waaye lii wér te wóor daal moom mooy vingt deux personnes ñoo ci rëcc loolu man Sadio Diop maa ni ko wax fii ci Cap Vert suba laa bëgg delluwaat ci gaa yi fa des pour gën leen mën a seet ndax fii na nii dañoo sonn sonn goo xam ne am na ñoo xam ne spécial dañoo lafañ ndax banque bi ñu doon banque noonu ci biir bato bi ci biir gaal gi